asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bokki kippangoog dari Serigne Moussa Ka noo ngi tiki di nuyu di am mbégte ci dellusiwaat ci daara ji fas yéena ànd ak ni nuko defe Serigne Moussa Ka dafa wax ne ma jëkk la wax weeru koor yoolam ba ak dara jam sok la xamal bisamba ma jëkk laa wax weeru koor yoolam ba ak darajaam soog laa xamal bisam ba buur yàlla ne bind na am malaayika ma nga aras day wor bëccëg wor guddi ga buur yàlla ne bind na am malaayika ma nga aras day wor bëccëg wor guddi ga moo nuy tere woor guddi ngir kooram ga ndekoon guddeeg bëccëg la nuy def koor ga moo nuy tere woor guddi ngir kooram ga ndekon guddeeg bëccëg la nuy def koor ga mi ngi fi junni bi junniy malaaka yuy jéggulul way woor ya fii hunaaka mi ngi fi junni bi junniy malaaka ya fii hunaaka bis buñ wumee mu daldi dem fa yàlla ne ko nga jéggal gaaya woor ngir yàlla bis buñ wumee mu dem bis bu ñu wumee mu daldi dem fa yàlla ne nga jéggal gaa yi woor ngir yàlla buur ne ko jéggal naa ñi woor ngir yàlla ba jéggalaale ñi wumul ngir yàlla mooy gaa ya leen di joxi ñam yu sell ak ndox yu teey ngir sàkku yoolub yàlla buur yàlla daldi di tampe yónnee Ridwaan ne wubbi naa aljana tey ngir Ramadan ñu daldi di wubbi wunti jannaati naim tëj wunti jaanama keroog ba yépp giim mboolem ñafaatu woon ci doomi aadama kenn dootu leen mbugal ci xeeti jaanama keroog bi kumte la yàllay jéggal téeméeri junni koora may njéggal keroog bisub kumte la yàllay jéggal téeméeri junni koora leen may njëggal suy ñaari fan mu def ko ñaari téeméer ciy junni ngir xamle ne weer wi lee foor suy ñetti fan mu def ko ñetti téeméer ciy junni ngir weer week jullit ñi koy wor ñenanti fan mu def ñenanti téeméer juróomi fan mu def juróomi téeméer nii lañu koy fule ba weeru koor xëy yananti aljuma yu dambe sen pay ni lañu koy fulé ba wéru koor aljuma yu dambe sen pay ku doge tandarma bu lew ci wéru koor ñu ful saraka ya ñenenti téeméer su laylatul qadar su laylatul qadar ñewé mu ful ko junni bi junni malakut ak mulku ba bis ba ñuy wori mu jéggal ñepp ku bokk xeetu Moustapha te sopp ba bis bu ñuy wori mu jéggal ñépp ku bokk xeetu Moustapha te sopp ku dul ku murtat mbaate kuy bokkaale mbaate jabar buy far gisaane yaale ku dul ku murtat mbaate kuy bokkaale mbaate jabar buy far gisaane yaale mbaa kuy dogug bokk limal kuy njaaloo mbaa kuy rambaaj kat bu mandi xaaloo ñii la borom aras ne barkeb ramadaan mën leen a may yërmaande bañ tabbi jinaan ñii la borom aras ne barkeb ramadaan mën leen a may yërmaande bañ tabbi jinaan jahannama ngaag ak garab gu sax ci moom bis bu xëyee di muslu xob yi rot ci moom jahannama ngaag ak garab gu sax ci moom bis bu xëyee di muslu xob yi rot fi moom yowmal xiyaam gaa yile lañ koy tuufe yowmal xiyaam gaa yile lañ koy tuufe yile juróom-yaari jikkoo ko suufe ku weddi li yëral xadiis yónneen kon te nga gis lu tax sa xol du wànneen yal na nu buur yàlla yërëm daaray ni te suturaal nu bu nu xam aaray ni yal na nu buur yàlla yërëm daaray ni te suturaal nu bu nu xam aaray ni bokk yi déggiin Yen jisin, yen jangin, yen bind lesi mana mën